mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa noo ngi waat fii ci Paris ci kàttanu yàlla ak yërmandeem eh, ngir dundal si guddik xasida gi nga xamante ni rek sëriñ Amsatu moom sëriñ Sohaybu moo ci joxe ndigal fii ci Paris ñu nekk tey ci dafa mel ni juróom-benneelu édition bi eh, ren nag gis nan ni mbooloo mi bari na lool Baye Sam ñu taxaw ak Baye Sam Diop di jëwriñu kuréelu xasida yi jóge Italie nga xam ni eh, at mu jot waa Paris dañu ci invité ñu ñëw ànd ak ñoom bis boobu di ko dundal jàng alxuraanul karim jàng ay xasida eh, bernde ñaanalante ñaanal jullit ñëpp ak àdduna bépp eh, laf ko ba meneen réewu aaya rek ñu dem ànd ak ñoom ci loola sëñ Sam gis nañ ni xat-xati réew mi bari na ndax fii wax dëgg yàlla ku fi nekk lu ci bari da ngay yëngu ci liggéey waaye ni ko sëñ Amane Ndiaye di waxee dañoo ñëwoon ngir wut si xaalis waaye mu mel ni dañ fay fekk lu gën loola muy liggéeyal Serigne Touba ñu doon laaj nag mbooloo mi nga xam ne yow yaay seen jëwriñ nan nga ànd ak ñoom ak euh, lan mooy solo bisub tey bi. alhamdulilah bisimilah rajim bisimilah rahmaani rahim ak maa borom Touba. <coughs> asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki jullit yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar di jëtal ci nuyoo bi ak siyaar bi. sëriñ Mountakha Mbacké eh, di nga xam ne moo fi nekkal sëriñ Touba di ñaan sunu borom yokk ko wér ak ko tal ko man ba li mu bëgg a liggéeyal maamam ji ñu ànd ak taalib yëpp liggéey ko ci biir loolu ñu ñaanal sëriñ Sidi Mokhtar nga xam ni moo fi bàyyi ko barki démb rek ñu xam ñu gis ne moom it lim liggéey ci lislaam lam fi lu nu wut lépp matal na ko kon yàlla sunu borom yokk yërmandeem ci moom yokk ay leeram. kon sëriñ laay jërëjëf ci laaj boobu xam naa lu yomb leeral lay doon rek ndax ñun suñu borom dañoo bind rek ngir ñu jaamu ko loolu la wax jaamu gi nag lu julleeg woor rek ci la bokk waaye nag liggéeyal sëriñ tubaa dafa bokk ci jaamu gi nga xam ni moo gën a wér ndax moom moo ko waxal boppam ndax dégg naa Eh, am na ay jamono mas naa fexe ba nekk ñaari jëm ki di liggéeyal ka ca kon mu mel ni liggéeyal Serigne Touba bokk na ci li nga xam ne si jaamu yalla la bokk te lépp lu mu def digle ko weesu wut jaamu yalla. kon nag def la mu digle jaamu yàlla gu wér la gu amul benn rax li nga xam ne nag eh, dañu fa ñëw tey jii ni nga ko waxee ci ngir bisu bu ñu amal fii dañu wax adressé ko xasida bisu lislaam la rek ndax jàng alxuraan moo ciy jiitu boole ko nag ak jàng xasida ak kenn yor sukurus def salaatu ala bi ak saafoxanteeg mbokki taalib yi nga xam ne nammoonte woon ngeen ngir lislaam mu mel nag ànd bi ñu ànd eh, yàlla yi kese la rek ju dara desut ju dara nekkut leneen lu dul yàlla moo tax ànd bi yàgg yomb ndax bu ci leneen raxoon rek eh, du yàgg te dana jafe te la muy yàggal yàggal jafe jafe sayet lay doon waaye euh, mu ngi mel ni ci nun koo xam ne nga saytu sa njabootu biir kër ndax la ngay seet sa njabootu biir kër sax am na yenn saa yi mu am loola métti ndax tuut tànk yi fa nekk da nga leen xaaji defal lii bàyyi lii ànd bii nu ànd ngir yàlla na nga xam ñun ñëpp suñu borom dogal nag mooy ay ay ñu di ay mukaalaf te bokk benn bëgg-bëgg bokk leen lu ñuy xañtu lañ cey séentu it ñu séentu ko ci muy gën a bëgg Sëriñ Tuubaa rek lañ ciy séentu nag kon moo tax ànd bi yomb ndax la ngay digle nga mënut a ñàkk a digle nan def nangam nan bàyyi nangam waaye gisoo kenn loo koy digal loo xam ne nekku ca di ko def gisoo kenn nit loo koy tere ndax gisoo kenn ci luñ koy tere kon moo tax ànd boobu eh, yomb lool ànd nag bu yàlla rek taxee mën naa yomb lool waye bisu bu ci leneen duggee lu lul nga gis jafe-jafe am kon laaj bobu ci gàttal rek loolu moom lañ ci mën a leeral. incha allah xanaa day wëndali sëñ bi doon wax rek ni ànd bu eh, maanaam suñ borom rek tax. nee na alhamdulilahi rabbil alamin moo ci mujj waaye ànd bu leneen tax loolu suñu borom nee na inna lillahi wa inna ilayhi rajiun rek moo ci mujj. waaw jëf kon loolu rek euh, wax jooju euh, mu jiitu li ñu wax ñun te xas na nekk lëgg ba noppi kon lañuy loolu lañ indi rek muy seere ci wax joojee ginnaaw loolu itam ñu xam ni ñëw gën ñëw fii tey ci Paris di ko demee ci yeneen barab te yenn saa yi tamit jëlub cëram non ñu ñëwee ci barab yi noonu la ñeneen ñi di jóge ci yeneen barab di ñëw ci eh, Italie ga ñu féete mu mel ni itam liggéey bi dafa am lu ci Serigne Touba nam te ñu ngi gis eh, joxoñ bi mu joxoñ mu mel ni diaspora bi yëpp dañu war a ànd nekk benn wenn say di yëkkatee loolu tegandoo liggéey bi ñuy liggéey it ñun ñëpp ñu bokk ndax gis nañ ni jamono yi yëpp eh, koo ci waxal ku jóge Espagne wala Norvège wala fii ci France dañ naan yéen Italie yéene suñuy jëwriñ kon mu mel ni euh, sunu borom moo dogal loola ci coobareem jaarale ko ci xaside Sëriñ Tuubaa yi kon rek foofu xam naa benn dénkaan rek laa fi joxe mu di nit laal buñ ko joxee lu ko jomb lu mu munta amal boppam te am ñeneen ñu ko gën fuuf na ci wetam te joxuñu leen ko moom miñ ko jox day xam boppam xamub cëram mu jàpp ko te téye ko la ca doole ko it mooy ñu yaatal ñëpp. ndax liggéey bi liggéey l'islam la liggéey Serigne Touba la képp koo xam bokk nga ak ñun gis-gis bokk ak ñun pas-pas liggéey baa ngi liggéey Serigne Touba la bunt yëpp ubbeeku nañu koo xam ne gis nga ni tamit jemukai, jëmukaay mën ngaa dem ci ña nga bokkal jëmukaay nga na ñoom seen jëmukaay ndax àddina it moo baaxoo noonu yoon yi bari na ndax damay dégg sëñ Samba mu wax ni yoon yi jëm ci yàlla mi ngi toll noo bindeef yi kon mel na ni mbindeef bu nekk ak sa jëminu ak sa jëminukaay ñun nag suñu borom dañoo baaxee dimbaleenu nu bokk benn jëmukaay muy ci lislaam waaye jaare ko ci Serigne Touba kon ñu ngi gën a ñaanal bu baax Serigne Mouhamadou Mountakha mi fi ne sunu borom gën ko fi yàggal ba lépp lu mu yéene ci lislaam mu mën koo def ci coobareem te ñu ànd ko ak moom jërëjëf sëñ Abdoulaye. waaw sëñ sëñ Samba tey benn laaj bu mujj rek gis nañ ni ñi fi toogaloon Cheikhul Khadim ci di tàmbalee ci Serigne Saliou ba ci Cheikh Mouhamadul Amine Bara Serigne Cheikh Sidine Mokhtar yàlla na suñu borom yokk seen i leer bi sëñ Mountakha ñëwee itam kazaalika yàlla na suñu borom yokk fanam dafa yeesalaat ndigal li waaye yeesal gi dafa mel ni euh, ci kàddu boppam la ñuy déggee baat yi ndax bu njëkk sax am na ñu daan doxalee suñu digganteek sëriñ bi donte dañu yegg ci sëriñ bi ko ci mel sëñ Cheikh Moutar nga xam ni moom wax ji daawul bari mhm. daawu ñu dégg kàddoom mu daan wax ci diggante lu mel ni sëñ Cheikh Bara wala sëñ ñu jottali mhm. waaye bii nag dafa ni sëñ euh, Cheikh Cheikh Mouhamadul Mountakha mhm. moo moom ay kàddoom dañ koy dégg ci wax ji ci joxoñ bi ak ndigal li euh, ak ba ci joxe ci waat sax xasida duñ ko ci dooleel. ñu ko ci ay waajuram sëñ Saliou defoon ak ay magam loolu mbubb mu yees la walla maanaam euh, teraanga la wala euh, maanaam ndigal lu bees la. Mm-hmm. jërëjëf sëñ Abdoulaye loolu mm, mën ngaa jàpp ne ndigal lu bees la waaye mën ngaa jàpp lu bees <coughs> xëy na yaatal gi mu yaatu ba ñëpp gisal ko seen bopp mooy li ci yees waaye jamonoy sëñ euh, sëriñ Saliou itam dañu xam ne surtout sëriñ Touba moo fa demoon muy sëriñ Hmm. déedéet sëñ Serif Mbacke moo fa demoon mu waxal ko ci kàllaama ak boppam joxe ci ndigal ak xasida yooyu mu joxe woon bi mu fi bàyyi ko ci saa it biñ ko jotee téléphoné daf ni kon lay dellu ci sëñ Alaaji Baara ba mu demee mu xamal ma ne ma moom it la mu waxoon la sëñ Saliou defoon lu ci dindi dara waaye kon moom yokk lañ ko ci yokkal jaali ma raqib sëñ Sidi Maxtaar tamit bu suñu borom dogalee ndigal li amit man mii ñettee woon ci kanam ci laa bokkoon muy wax may dégg ak ña ma àndaloon waaye nag lii nga xam ne tey moo ci gën a nga xam sëriñ bi dafa waxal bi jël gisal seen bop kon loolu mom jagleeg sëñ Muntaxa la gu ko sunu borom jagleel ak itam jagleeg gum nu jagleel la di gën a fëddali ndigal li ndax ndigal li mosu fee jóg waaye gën ba kenn dootu ci laam-laamee ndax bu man nga ni gars dañuy wax rek demuñu fa sëñ ba tey nag bu waxal kon mom, dafa fëddali mu mel lu baax fépp fu mu Eh, képp ku fi nekk sëñ Tuubaa ak sab cër kon loolu ab cëram ma bu ko sunu borom cërale ñu xam ne eh, moom itam eh, na na gaa yu baax yi jaaree woon sëriñ Sidi Moxtaar waxal nañ ko ci dolli moom nooru daara yi nii moom mu ñëw nañ ko ci dolli moom itam moo fàttali bisri kon mooy wane ni la seeni mag defoon wala la seeni wajur defoon buñ ko yokkut duñ ko wàññee ndax doxin wi wenn la te gis nañu dox ci sëñ dem ci sëñ Tuubaa la ndox jëm ci sëñ Tuubaa nag boo ko xasee def kate jaar da ko joxe ni ko yoon waa ngi nii bu demee ba ca biir yoon wa nag mën na ca gis leneen loo xam ne sax xëy na yow mu jiitu woon sax gisoo ko mu dolli ko ca kon dolli xasida yooyu man noonu rek laa ko mën a gisee noonu laa ko mën a jàppee ak it firndeel ni lii maa ko def maa ko wax waaw ndax maa wax lii maa joxe ndigal lii joxe ci xasida gi ni ko ci def kon loolu lay gën a fëtli ni wax ji mën a. ndeysaan mooy kon li sëñ Abdoulaye doon ah, maa ni moom fu ne rek. moo ni toxu na kon loolu rek moom moom lañ moom lañ moom sëñ sëñ Mountakha fëtliwaat kon ñu ngi koy doolee ñaan rek mu yàgg fi lool te wér te li mu bëgg ci noonu. yàlla na ko am ñu li ñuy séentu ci moom lépp gëm nañ ni mi ngi ci moom waaye yàlla nay suñu wërsëg ñu itam ban jot ci amiin ak sa ak sa kon mbokki jullit mbokki taalibe yi loolu mooy interview bi nga xam ne rek ñu ko doon def ak jëwriñu Serigne Sam euh, Diop di jëwriñu kuréelu xasida yi Touba Italie ñu ñëw fii ci Paris ci sixième édition journée xasida euh, Touba Paris kon euh, ci kanam rek dinañ du ñàkk ñu jokkoo ak yeneen mbokki taalibe ñu waxtaan ak ñoom laaj leen seeni xalaat ci bis bi jërë ngeen jëf ba ci kanam laaj bi maa ko waroon ne muy tontu waaye léegi waaye nag euh, sargal na yàlla bu baax benn dimension ngay am loolu mooy li ñu ko mën a màggalu jaamu yàlla la ñuy dafa loolu wàcc ci kaw mais nag dañoo boole ñaari benn benn théorie boo xam ne si waa waxoon bu yàgg jaamu yàlla jéelu sëriñ jéelu sëriñ bu baax jaamoo ko yàlla moom boo ko lan mooy loolu mooy li ñu ne moo ñu indi def ko si eh. yéene biñ ci am xam nañ ak sëñ Tuubaa maamu Lara ak si leneen laay fi yeddi loo kon mun ni tam ak taalibeem maanaam dañuy nopp ci mbindeef ci roy ko ndax danaa ci jot mën ko roy mais am na noo ko mën a roy mooy lim bind nga jël yoo sax mooy ginnaaw ñun amuñu capacité jafaroo ko bab amuñu capacité bu ñu isolé ñu génne ñu jëriñu mais nag sañ na ne li mu indi mooy ngay jaamu jël bii daal ñoo ngi ñaan bokk ko am daal naw waa lépp jàpp law ñëpp maanaam amee yàlla mooy am na sëñ bu baax am na jabal su koy wootee nekk la ñu li ci gën a yéeme sax mooy ci sa biir dëkk ci la lay gën a gën a xool gën a jotaat ba ci lañ ñi nga xamante ne ñooy Sénégal doon ci Sénégal comme newoon naan nañ def baax jël en tant que un Sénégal wala africain un mois yow léegi ndax waroo dépendre moom nga xamante ne sa compatriote da ngaa jàpp da ngaa da ngaa bëgg am sama réew ñu jël benn élément ci seen réew bëgg ko yóbbu lu tax yow taxaw jàmmarloo ñoom te dafa leen bàcc ci biir sénégalais am nga jël lu tax maanaam population bi dañu boo ko jàppale cinq cent mille personnes lañu mais kan moo ñu ko la taw sëñ bi foofu am ñoo xamante benn fan a ñu jur ñëpp ñu tënk baax ay Moussa dinañ ko waaye a moom am ci raw léegi mel ni ñun wala murid ñu leneen kon ñu tam gën a bàyyi xel ci am ñu ñëpp yéen xam ne réeroo moom c'est-à-dire dañ ne lam rek ci liggéey xam naa dama lay bàyyi nga incha allah laaj man ma dem wuyu waa waa monsieur Djim incha allah waaw waaw sëñ Babel moom sëñ Belel la koy woy dinaa ci sawar ñaari daje ñu daje mën nañ ko ñu yeewu suñu borom te jëf ji itam ci lañ nekk nga xam ne dëkk gi mooy wane ne yóbbaale woon ñu ci dëkk gi mooy wane ne yóbbaale woon ñu ci day suñu dund kon mooy dama dox ne daal ñaari la ci daje mën def ko ak def ko ba noppi te mënoo mën ñu yooyu nag kon ñu ngi sant yàlla baax dëkk gi ñu ko dëkkee ba yàlla indi suuf si tey te ñëppul tey ñu ngi fi ñëw di ko def ren jot ñu si ñu euh, leneen li nga xam ne rek moo fi am solo te ñun ñëpp ñu war koo jàpp mooy gën a góorgóorlu loolu góorgóorlu doy ndax dañoo xam ne sax bu fekkente ne nii yëg nga doole sant war na ñëpp ak ndolle sant war na kon nag ki nga xam ne nii li muy jéem mu ngi ci gis yokk kon kooku lu mu góorgóorlu looloo waral moo xam ne kon lu mu góorgóorlu ba tax na itam benn kàddu boo xam ne wane suñu bopp benn yoon ci lii ñuy def na am koy loo xam ne day wane suñu ci li ñuy xanaa soññu suñu bopp mooy ndax liberté moom mooy kii nga xam ne mooy sababas daje bi tey te ab liggéeyam ñu di ko màggal boo xoolee fi mu jaar ba fi mu agsi nga war a xam ne loolu kese war naa def ci xelu ko taalibe ko war naa def ci xelu taalibe bu ne nof laay far nag ki nga tudd léegi daa wax ne gàttaay bi àdduna nañ ko

udah des ci caaxaan semua yang ci kon ma ko yaakaar ne am xalis di sini ne rek hukum gën laku ko góob gën a lakk saa yoo te lu rek moom may may li mu bëgg moom daal kàddu yi mu gudd rek rek dañu mel ni ki gis suñu bopp te amuñu ci wàll moom loolu daal moo tax bopp seen seen. maanaam bu leen galvaniser maanaam bu ñu wax seen pastéef bi ci biir ba xam nga xam nga xam nga lii mandarga yi wax ci sëriñ bi xool leen danaa leen fekk ci seen suuf wax am tey yéen ñoom bu ñu xamoon bu ñu songee sëriñ ci lii lay mujjee fii ñu jógee woon ñëw fii la ñu leen di fekkaat di ko def te ci mën dara yaakaar naa ne song ndax li ñu bëggoon moom mooy mu bañ a mu bañ a boo seetee ni kon moom tontu sëñ Tuubaa la ngay waaye nag duñ ci gis suñu bopp ndax ndimbala ma ndax fii ñu nekk kat am na lu bare bare bare loo xam ne jëm ci diine ku ko fi woote mën ngaa def ay coow te yaakaar naa ne bu ñu gën a metti lañ ko fi gën lañ ko fi gën a ndax at ñu ngi fi jóge. li kon loolu day wane ni sëñ Tuubaa suñu borom nam na sëñ Abdou Lahad daan wax naan li na lépp barkeel ba nga xam ni ci fànn bu mu mën a doonee sëñ Tuubaa loolu nag mooy lii tey ndax jàpp naa ne nii fi dëkk tey ñoom ñoo ñëwoon foofu fekk

résultat yi seen tubaab yi defal ci liggéey seen tubaab yi yëngatu ci xasida yi ak yëngatu ci gis ñu koy sant moom mbooloo mi saa su ne gën a loolu nag kon day wane ni tool bi seen tubaab moo nekk taal wax ga mu waxoon ak ñoom yëkkatul yàq jëflantewul ak ñoom lu dul ci jaamu yàlla mu dëggal ay waxam jërëjëf kooku moo doon sëñ Mbaye Diagne bokk ci commission de rendez-vous yi nga xam ne rek mu ngi am fii ci temps fort yi fii ci aéroport Charles de Gaulle fii ci Paris ñu nekk ci cinquième édition journée xasida Dialibatoul Marab fii ci Paris ñoom ñi am ci ndigalu Serigne am sa mu Serigne Fallou Mbacké invité woon ci entrepreneur xasida Touba Italie ñu ñëw fii kon xaarandi rek ci aéroport bi waaye ñoo xam Serigne Cheikh ñu bëggoon rek ci bëy bu gàtt rek invité ñu xasida bi nga xam te ne Serigne ma nga doon wax ak tubaab yi ne jëmmi jamono dinaa dellu ci seen réew yi ci seen suuf yooyu waxtanteeg ñoom ndeysaan jamono jooja koy wax mag ñi dañoo jàpp ni war a si sëñ bi mooy fekk booba ma ngay mandargal ak taalibe yi noonu ëllëg dinañ jàpp di ko yëkkati ak jamono ci ay bay bu gàtt rek ak kër nuyoo ko jullit ñi nuyoo yi

عبد قديم لرسول الله وأنني ما سرت ساتجري من بالكفر ساتجري ولا وداعي سيد الرجل انسى من يموت تفرج سبحانه ربا إليه أرتجي kon loolu mooy bay bi yéeme mooy xadimu nasara waaye ci arc yi ci seen suuf ya wala wax dafay amee mel ni kon rek sëriñ bi seen fi woon na ay taalibe wala ay xasidam danañ jolli ci réew yoo xamante ni ñu ñëwoon ni ko doog fi defee foofa la ñuy def di fa defee daanaka boo ko dee xool sax ci mbooloo yu bari seen takk der yi ñooy ñëw wër di ñu ñu aar ñu dara du ñu aar yàlla sant nañ ci yàlla bu baax a baax nit nag dafa mënut a am lu baax te sonn damay joxe misaal jamono ji rek ne yoonu lislaam mi ngi mel ni garabu ron bu sore ca kaw ñu ne da nga ko yéeg doo yor dara nga xam ne kon li olof yi wax ñàpp da say tànk dara sa dënn ñu yëkkat say loxo di aj bakkan nga yegg wala boog bu mel ni garab la boo xam ni lu bari ay dégg la ñu ñu yiif ci de garab yi yëg kon dara yomb ci ñoom kon mooy yoon wu métt la yoonu sax di déglu mag ñi nga xam ne gis ngeen ni jaar na ci yoon jëm ci yoon ndax lu mag ñëpp ci jaar ña ca jaar la nga mooy ngeen gën jéem a sellal ndax jumtu ay léegi bari na yoo xam ne dañ koy jaar ba liggéey lislaam ni mu amee njariñ na la amee dara tam kon ñu gën a gën a amal la nga des tamit mooy dénkaane benn dénk boo xam ne ndaw ñeeg ñëpp laa koy xool ñi nga xam ne dañu wax ne xasida yi ñooy suñuy sëriñ am ñoo xam ne dañuy jël ah, di jël di ko jullee sëriñ Tuubaa de di ñu fay nekk

dëgg fa yàlla euh, royukaay la saa yu ko gisee suñu xel day dal ndax xaj na heure bii mënoon naa toog nopp waaye fu ndaw ñi jëm gis ko muy fii muy Italie muy Norvège fépp koo ne fii mel ni ànd naag ndaw ñi dem taxaw fa euh, gën cee ëpp paste kon ñu def ñaanal la rek yàlla suñu borom yàggal la suñu kanam nga yàgg ñoo tete fi nga bëgg aw fa aw ko te lépp doon njariñ sotteekuwaat ci askan ñi ngi lay sant bu baax euh, sëñ Abel euh, mel na ni rek euh, kàddu yi matte na waaye bu tey it yow jox la nga baax ay ay kàddu ndax gis nañ taxawaay bu am solo bi nga xam ne yaa ngi koy taxaw ci liggéeyu xaside yi foofee ca Italie tey délégation bu mel nii jógee ci Italie ci gox yu fasanti ko ñoom ñëpp ñëw ànd ak suñuy naataangoo fii Eh, muy ja kuréel Jaalibatul Maraaxib ngir màggal xasitay Serigne Touba di ko màggal ci dëkk bu doy waar ndax ñi nga ini ne ñoo sañ ci dëkk bi ñooy ñi sonaloon Serigne Touba ñu dem ba toog nag di yëkkati xasitay Serigne Touba ci dëkk bi loolu dafay lu yéeme doy waar kon tey ban jàngat nga xam ne salaamaaleykum Abdoulaye euh, ñu ngi nuyu seer baax baax di nuyu waa Sénégal di ñaanal Serigne Touba ñaan naa li nga xam ne moom ñu Cheikh Mouhamadou yóbbu yoon yi foo xam ni yow tam na jot mel na ni am na lu xam naa Baye Sam jaar na ci nuyu bi lépp rek suñu kàddu mi ngi jëm ci sant ko moom ndax Baye Sam ñi nga xam ni noonu lu na ñu ko waxee waroon na toog ñuy ñëw waaye dafa ci wàllu délégation italienne dafa amatul frontière donc ba ñu nee mondialisation ba léegi kon ni frontière yi diggante Espagne Espagne euh, France Italie Espagne moo koy kon léegi bés xasida diaspora yi la wax euh, ndax keroog bi ñuy dem ci seen programme ko nga ko di ko jébbal mel na ni yeesalu ko rek ci turu waa Italie daf ko ci mboolem diaspora bi kon fi ne nii Baye Sam amatul ni man damay damay damay waa Italie soo ko wax waa France lépp luy def te dañuy toog bokk na loolu moom sabab bi mu yéene la looloo taxit saa yi ñu déggee bis la mboolem di jóge su ma juum délégation bi toll ci deux cent cinquante trois cent nga xam ñoo la a bokk te xamuñu loolu lépp nag ni euh, ko Baye Samb waxoon du du folklore du tourisme dara jaamu yàlla la ndax dañoo ñëw ci réew moo xam ne ñoo bokkoon ci xam ñoo jëloon sëñ bi ci ci suñu borom ñu ko ko nekk fa moom ay biir ñu jiital ñooñu tey ñoo fi nekk te mënuñu ñoo teree jàng alxuraan mënuñu ñoo teree jàng xasida ci biir réew mi tey mu mel ni at yi yëpp tamit gis nañu ñi nga xam ne noonu lañu tax ba ñoom te ñu di jéem a euh, jéem a maanaam euh, wax ci lislaam loo xam ne am waaye mel na ne saa su ne dafa suñu tuwaay ñu fi nekk tamit ñëpp ay wax ay ay xeetu yu am solo yoo xam ne fépp foo xam ne Tuubaa lañu fa yore suñu tuwaay ñu fa yore sant ñëpp nag tey tey ci tur Baye Sam bi ko ñëpp nga xam ni Serigne Mountakha dañoo jox ndigal ñi yeesal leen ndigal ñi fi jaaroon mm-hmm. ci Serigne ci euh, ba ci ba ci ba ci Cheikh xam ne ñu yàlla yàlla yokk leeram ci biir nag kon ci lañ bëgg ñu moo leen bi yëpp mm-hmm. ñu ànd fexe ba lii Baye Fall bi di woote dama si mën xam ñu ànd ci te moom dafa ni ku dem ma dem ku demul ma dem mm-hmm. ginnaaw day dem nag kon ñu ànd moom dem loolu sax ñaan yi yàlla na suñu borom yokk seen télé bi baax sëriñ Tuubaa moo ndax tey tey tey lii dafa duggaat tamit lépp ci biir liggéey sëriñ bi rek maanaam euh, télévision web yeeg rajo web yeeg kuréel xasida yi lépp liggéey sëriñ bi kon nag loolu lépp yàlla na dañu voilà ñi ngi sant bu baax mel na ni yoon bi métti na te ñuy xaar dafa bari ndax euh, ñu war a yendoo fanaane ko kon faaw rek yu yebi waaye duñ def it lu sant télévision yi nga xam ne moom lañ seqal liggéey bi comme ni nga ko waxee ndax euh, gis nga rajo Xassida online ak euh, Touba Monde bi TV ci jëriñ ji sa ñëw Mbaye Thiam ñu ànd ci itam ak euh, Serigne Idrissa Diop tuuti ci Mouride TV waa Maraxib TV ñëw nañ donc lépp loo xam ne li yëngatukaayu yoon murid la rek tey daje nañ fii ci Paris ngir rek fësal ko ba fépp fu waay mën a nekk rek mën cee jariñ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 nga leen di yéene ci sëriñ bi waaye ñaanal jullit ñëpp ñaanal ci liggéey bi te sëriñ ñoo gi nga xam fi ci pari loolu ko yërmande loolu koy leer fa mu nekk ndax nga xam ne ren mooy am fii ci Touba Paris waa Diallibatou ko amal ndigal am sama sooy nekk tey ci cinquième édition bi loolu moo tax ñu def déplacement bi ñëw Paris ànd ak ñoom liggéey bi ngir joxtal leen lépp li nga xamante ne ñoo ko fiy jëlee muy njàngum alquran njàngum xasida ak gànde ak ay retrouvailles yoo xam ne wax dëgg yàlla kenn ku boo gisee sa taalib rek day mel ni sarak wala sa mbokk deret nga gis ndax mbokk gi nga xamante ne mooy mbokk pas-pas bi mooy liggéey Serigne Touba looloore mooy li nga xamante yang kita, lañ leen ci kanam ci ay reportage ci ay interview waaye wan leen image yi ak ñuy dox ci li nga situasi ne moo di dox ko defee bu nit ñu dox ko surtout ko waaye lépp ñu ci def ñoo ngi ñaan ñu ko def wax suñu borom ak ñu am ko ko ci di dawal yi ci na wala wala barke maam sa ci caméra papa bi ci si ñu bëgg pertemuan telah disediakan memberi nyet nanti untuk ditambil waktu raja kedua lain pertemuan ini menjadi dari yang minang buku bukunya jika nanti kita lagi dengan diketi ini waktu vivo fi di Paris 5 edition edition 2017 jurnal presiden Cuba jalan bagaimana jadi